بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل كل شيء ما ينال خليفة المسلمين باي عبد الله ابن سيدنا عيسى والله ابن إمام الله إمام كل إمام إمام الأرمين kaddu yi may yëkkati nag pour wax ko ci nguur gi la jëm muy état bi muy la responsabilité de l' parce que ñoom li nu war a def ñoo jëlul seen responsabilité état moo jëlu responsabilité am parce que bu jëloon ay responsabilité am yii xew tey jii du am ndogal bu amee kilifa kilifa la nit ki dafa war a dem toog wax ak ay kilifa xalifatal muslimin mi ngi fi dañu war a wax ak moom comme ni nu demee ba Touba toog a wax ak xalifa ba kon nag ñi ni du ay mbifaan ñi ni chaque personne buy néew buy nooyee fii ci réewum Sénégal bi ak adduna bi yëpp ala rawati Sénégal gi ñu ne feebar bii am muy coronavirus ku nekk yaa ko war a daw. dajaloo lay bañ ak nangam nangam mais ba pare état jëlul ay ay matuwaayam ana lan mooy lan mooy lan moo tax lii am tey jii li naqari sama xol laay wax ni mënuñu ñëw tey. ñu ni Touba julli na teg nañ fa ay nangam ak nangam nangam ñun ñu julli fii ngeen wax dangeen di jël suñu imam état fan ngeen teg loolu parce que jëlu leen seen responsabilité boo leen jël seen responsabilité di ngeen arrêté li xew Touba wala fekkee boo leen bàyyee Touba la fa xew beneen këru diine kon doo leen ñëw jàpp fii de si si waa di fa def loolu seen responsable di ngeen responsabilité di ngeen koy jël mu mat sëkk li feebar la boo xam ni ku dajeek nangam nangam ñëpp a d'accord si ba tax ñu éliminer yenn kii après jëlee seen responsabilité ngeen bëgg nag boyal ñen ña fay ñenn manta am lii nag am na lu ka lu kalal am na lu lal lii te li lal lii nag na ngeen ko xoolaat bu baax lan la ñun de xamuñu ko moom Mamadou Makhtar mii ngeen wax da ngeen koy jël si wala da ngeen waxtaan ak moom boo dee waxtaan si looy indi ay takki kati der fanweeri nit ñun taalibe yi ñoo ko nanguwul dee na te ki ngeen ki ñëw di ko def si du mbi faan am na yar am na teggin am na worma te borom xam-xam la te maandu na te doylu na soxlawul daray état daray état imam Maxtaar soxlawu ko musul talal état la musul dem ci audience musulu ko woo musul kon lii jekkul état jël leen seen responsabilité ci yii am jël leen seen responsabilité ci yii am loolu rek laa amul lu may wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.